yi am na lu bare bari xam ne war nañu ko see mën a jàngatee ngir nag mën a moom seen bopp yéen kaay gi ne li nga xam ne a doy waar moom la ñu tëg ma la waa extrême droite soo moytuwulee dinañu daal di jël seen revanche maanaam cohabitation am ca assemblée nationale loole lu mën a nekk la yéen kaay gi di 24 heures xëy wax ci Sénégal ak jafe nga xam ne moom la làmboo la askanu Sénégal ñi nga xam ne ñoo fi yeewoo bëri na ci ñoo xam ne dañoo sonn ñooma maanaam nga ñam nekku sa Macky Sall jafe-jafe yi askan wi dund maanaam fereñeentewul Macky Sall du samay kàddu damay nettale ñii nga xam ne ñooy waaj ñoo lànk ñoo ko xamle ma ngi ci 24 heures ndax ñoom nee nañu weer wu sell wii di weeru koora maanaam lépp seer njëg yi seer nañ ba maara détaillé yéen kaa gi ne nak jamono jooje Macky Sall teg na fi ay institution yoo xamante ni xaalis bu weex tàll la su dugal te nag amul benn njariñ lii nag lenn kese kese rek dong moo koy saafara askanu Sénégal gi yëpp daal di xam ne moom la ñu dëgmal askan wi bañ a votal ñi nga xam ne ñooy waa benn bokk yaakaar loolu rek moo mën a tax giraawal yeeg njombe yi nga xam ne Macky Sall nekkee na ko loolee mën a jeex a kaay gi di réew mi ko di jeex élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal du yomb benn yoon ci Macky Sall ndax ñi nga xam ne ñooy waa LD ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax ñàkku solidarité gi nga xam ne moo am ci biir benn bokk yaakaar yéen a kaay gi di l'observateur nee na coalition dañoo bëgg gagné élection législative yi waaye nag ngir ñu gagné élection législative nag imposé Macky Sall cohabitation il faut ku nekk nag am loo bàyyi kaay gi na nga xam na nag ay feem yu bees yoo xamante ni dañu koo daal di teg ci lu jëm ci seen wàllum investiture yi waaye nag na leera suñu bëggee gagné daal li nga xam ne mooy élection législative yi imposé Macky Sall cohabitation il faut que nag bëgg-bëgg yi ñu daal di koy yemale yéene kaay gii di la mandat nee na élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la soo moytuwulee nag danañu gis coalition benn bokk yaakaar daal di xar ñaar waaye tamit soo moytuwulee ñu gis coalition yeewu askan wi daal di xar ñaar yéene kaay gii wal fajiri nee na Macky Sall daal arme bi nga xam ne moom la yore mooy lu jëm ci wàllum transhumance maanaam transhumance yi rek la Macky Sall nag fas yéene jëfandikoo ngir nag gagné élection yi yéen a kaay gii di réew mi quotidien xëy nag dañu xibaar mbir mu garaaw a garaaw a garaaw en tout cas askan wi nga xam ne ñoo yewoo Médina ñoo ngi ci danger te giraawaali gu waa waar musiba ma bokkumba mën naa dal askan wi nga xam na ñooy yewoo Médina nag bu dee jëluñu si ay matukaay ndax nag maire bu Médina Bamba Falla nee na am na lu toll si juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay bâtiment yoo xam ne kaay gi di bi xëy duñu xibaar naan ñu sibburu si war nañu see jël ay matukaay ndax nag sibburu si ma ngi ay njombe nee ma paludisme bi gi di Sud Quotidien nee la santé nee ma Abdoulaye Diouf Sarr ak nag alliance ànd gësama ni ki démb daan nañuy signé lu toll ci fukk ak juróom ñaar ci ay point daan nañu koy déggoo grève bi nag journal bi nee na léegi te ñu teg ko ci suuf waaye nag ba léegi tegaguñ ko ci suufa ndax nag alliance ànd gësam ñoom nee nañu il faut ñu gis nag ministre bi ñu dénk wàllu finance ci réew mi nee ma Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Diouf Sarr ci yéen kaay gi la Soleil ak L'As L'Obs ak Vox Populi ma ngi woon ak ñi nga xam ne ñooy acteur de la santé yi ngir nag ñu daal di ànd kook dal ma leen di woo ci kalma waaye nag daal nay rafetlu bu baax baax baax taxawaayu ànd gësama yéene kaay gi de la Soleil nee na gouvernement bu Sénégal ci lu jëm ci jafe-jafe yi nga xam ne am na ci lu jëm ci wàllu wér gu yaram ke ñoom nag nee na ñu ubbeeku nañ ngir nag daal di waxtaan Abdoulaye Diouf Sarr nee na lu jëm ci mbiri Astou na ñu woolu nag ñi nga xam ne ñoo yor sunu wàllum yoon ci réew mi yéene kaay gi de Libération ci mu njëkk ba njiitul chambre de commerce Sénégal Portugal di Gonzalo Pitera Camara moom dañu koo teg loxo ci aéroport international Blaise Diagne lan def li koy tuumaal mooy lu jëm ci wàllum fraude documentaire waaye tamit association de malfaiteurs lëngoo di def ay ñaawteef blanchiment de capitaux trafic migrant loolu moo tax ñu laa di koy teg loxo ma ci giraawali gu tey war a loolu scandale la yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñi nga xam ne ñooy activistes yi mer nañu ba maara détail yi nee na ñoom ñi nga xam ne ñooy yi nee nañu Cheikh Omar Diagne tëjuñu ko ci kaso bi ngir nag li mu waxal Jibril Waara dafa am ñoo xam ne ñoo làqatu ci ginnaaw ngir nag tuumal Cheikh Omar Diagne ngir nag daal di koy toroxale ñoom caat ñoom Abdou Karim Xurum Xaqa nee nañu Macky Sall jaay doole gi nga xam ne moom la nekkee ci réew mi loole la Macky Sall war a bàyyi am na loo xam ne nag wàllum dictature la yéen a kaay gi di Stades xëy duñu xibaar naan ñu match Ligue des Champions bi nga xam ne tey ci nag dina dox diggante Manchester City ak Real Madrid maanaam du yomb benn yoon ci ñaari équipe du ci kenn